c'est normal que représentativité nit ñi ne dafa yem Dakar puisque dafa am lu ma waroon a moytu il ne devait pas sur les pieds de son patron déjà tuuma amoon na ay temps ñu tuumaal ko ko déjà politique oui. surtout quand un numéro 2 un chef du gouvernement premier ministre dañ lay surveiller les renseignements te surveillent say noon di la surveiller les compagnons du président de la République di la surveiller nuit et jour pour xam ci lan nga ne kooku tey jii bu génnoon dakaar bi ngeen di wax ne fa la base am yem jéem a dugg biir Sénégal ñu rëq ndigam. ñu ne ay ambition dafa démesuré c'est normal léegi nag léegi nii nii nii nii ah oui dafa war a génn dakaar liggéey baa ngi soog a commencé ce n'est plus le même Amadou Ba il n'est pas encore élu président mais c'est le candidat à la présidence de la majorité présidentielle looloo tax d'ailleurs peut-être que dinañ ci agsi nécessairement dafa war a quitter son poste de premier ministre. ah bon. ah nécessairement. Si. non mais am na am na information yu ay rumeurs yu ngeen ne démission li nga xamante moo di poste premier ministre am yàgg dara dañ am li nga xamante moo di remaniement. mais remaniement bi dafa normal. Mmh, effectivement démission xam nga man na ma bokk ci ñi nga xam ne. je l'ai dit un peu wax naa ko ci yeneen plateau télévision. Mm-hmm. ma ne leen man li ma yaakaar mooy. wax dëgg fa yàlla la désignation du candidat de Benno Bokk Yaakaar xaw na yéex du ma ko nëbb c'est mon point de vue. pour pour yow sa xarit bi lu tax mu yéexal ko mais imaginez celui-là on le mm-hmm. cinq mois de l'élection présidentielle. monsieur le ministre yow lu tax sa xarit bi pour yow mu yéexal ko. mais ça c'est le style Macky Sall c'est le style Macky Sall mais pour dire que il n'est pas candidat à la présidentielle yéexalu ko joué wul ba ñëpp. réer kenn xamatul fan la jëm ñii naan woyu dafa ba nekk candidat ñii naan non non la mu waxoon ci la nekk ba léegi daf ko respecté si la bu dugalee ay oui ou ce n'est ni oui ni mais yooyu yëpp pour ñu bañ a xam fa muy fële comme tey avant tey kenn xamuloon ne amadu Ba lay désigner affaire bi da doon waame. d'accord bu ngeen xoolee mois bi passé le mois passé ou les deux mois passés. Mhm. gars dañuy jékki-jékki surtout yéen journalistes yi observateurs yi dañuy jékki-jékki rek ne ah Abdoulaye Daouda Diallo <laughs> il est en pole position. ñu jékki-jékki ne ah nee na Mohamed Boun Abdallah Dionne na présenté candidature am. Mhm. c'est pas pour rien. Mhm. waaja lay jël puisque c'est le choix du cœur. ñu jékki-jékki ne le choix de la raison c'est Amadou Ba bu ko jëlul parti ba tas coalition bi nii nangam ak nangam. affaire bi da doon dem di ñëw di dem te te il se plaisait à ça. Macky Sall buggul fa mu jëm nit ñi xam ko.